Ibrahim Bonwangom Ngandi Ngandi John Elage John Elage Ndong Ngandi John mu ngi noonu ndeysaan làmb namoon na ko moom moomu le moom ngal John moo nekk noonu ngal bu maam jaara mu ngi nii ndeysaan bu bébé faa moom moomu moo nekk noonu mu jaan bi cee teet teet ñëw na waxee uh-huh. oh, na làmb ko moom moomule mu ngi noonu mu ngi sotteeku rek de waaw ndax nu muy def da koy wër mu ngi noonu la ndeysaan làmb na ko moom moomu mu ngi noonu ndeysaan xoolal ma saabu yi dafa mel ni première suram première suram nga jowlu préparé na ko de xoolal saako yi ndeysaan waaw waaw ànd na fi ñeenti saako de ak benn jiwo dana meññeet bi lan la ci def mu ngay kaste mu ngay wàqi ngala mi wàqi de mu ngay wàqi de

da ngay jàpp rek ndeysaan yor na benn bant bi ci jàpp def na ko kon ndeysaan yor bant bi ci jàpp rek moom moom de suul na ko fa de dugal na ko ci biir baax na de gën ko moom mu ngay suul waaw waaw damay bi nan lay laqal ci nii हमेशा जिला सुदामा से बोले जन्म देने में दे जन्म देने में दे और सिंह बैठ के प्यार से बोले जाओ जो हम क्यों करते हमेशा जिला सुदामा से बोले जाओ से क्यों करते ñoom ñaar de sax ñu ngi waxtaan de ñu ngi waxte ñoom ñaar ñu waxte mais xoolal ma ko jënd bi nga xam ne si nga mbay bi yor na ko ñu waxte ci wàllu ci mutaay bi la ñu wax ndeysaan dañuy ba a fàtte bagage waaw waaw yàgg na de mbaaru daa am lu ñu fàtte ñoom ñooñu ne est amul lu ñu fàtte ñoom ñaar fan la wàññeen di mu jéggi bëtam ñu nga jarat ndeysaan ñoo ñooñu def bi suul ko de waaw bos na ko fan lay aw moom